asalaamaaleykum yéen ñu ñuy seetaan ci biir Dak Médina tey nag ñu ngi Gueule Tapée rue 62 seet si fi mbër mu mag ñu koy wax Déranger mu bëree dimanche daan avec la manière dañ koy bàyyi rek mu nuyoo Déranger ñu ngi leen nuyu. alhamdulilah bisimilah ina wane yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si Médina Fass Colobane HLM Grand Dakar benn tali Biscuiterie zone B zone A ba Point E ñoom ñoom ñu leen di sant di leen gërëm maam fu mu jóge fu mu jëm gënal ko fu mu jóge a yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana yi gën a kawe si kaw. bi la moo koy indi. turu dérange bi si nit ñi la jóge rek mhm. waaw. la mhm. moo la dugal ci làmb tamit bala ñuy tàmbali combat dimanche bi. li ma dugal ci làmb bari na. waaw ah, naa kan nga fan ba dugg ci lamb. non fan ma kenn ku dul sama bopp dama xam ne ñoom li ñuy def nii maa ngi ko dàq foo. yàlla nga waaw. Ah. mais Drange bëre nga mbapat. waaw xoolal dugal si lii bi internet bi nga xool na bëri naa mbapat. ñaata drapeau na. na waaw ah, mais benn rek lañ nit ñi gisagum. Mhm, muy bi ma jël ñangal. nga jël ñangal. waaw ndax boobu la nit ñi di soog a ma man damay bëri mais ba may bëri ay jamono loolu. ay diggante 2012 boo maanaam booy laa quoi li may boole si mbapat yi may bëre premier combat yooyu noonu. Euh, ñu gis tamit euh, dimanche nga bëre gol tàpp yëpp génn euh, lan nga defal booy bañ topp la. non man moom mënu ma xam lan laa defal quoi ndax nit ku nekk yaa moom sa bopp. nit ku nekk yaa yëg sa bopp quoi ba ma xewle ba nga mën a bàyyi sa lépp mën a ñëw. du ma def lu dul ñaanal leen rek di leen sant di leen gërëm quoi ndax moom. ndax ba mu leen gisee keroog am naa mbetteel boo xamante ne nii am ma bett quoi du amuma seen fayda daal laa mun a wax. waa ñu gis déranger tamit euh, bu mbëru Gueule Tapée du bëri da ci sonn open press yi euh, départ bi ba ci booy Gueule Tapée keroog bi muy bëree gis nañ la fa tamit loolu sa relation ak mbëru Gueule Tapée. man drapeau Gueule Tapée moo ma ñor waaw man ku dul Gueule Tapée rek ak ala Ndakaaru bi nii rek mooy loolu. ndax ñun fii Gueule Tapée boo seetee mbër bu nekk fii la juge di bëre daan dem ba ci tee roi des arènes 15 ans 15 yëpp Gueule Tapée la ko solo mais ba léegi waxul Gueule Tapée la dëkk Joal la dëkk ay mbay gay sama sunu kër la doon ngemboo sama maam moo ko doon ngemba ma yaa ngi saw muy fii sawen te tamit kër gi ma juddoo tamit cosaanu làmb la te yoon la Gueule Tapée am champion te par force am champion ndax taxaw ma pour ay neexal mbër dama ñëw pour liggéey rek dem sama yoon waaw. sa combat dimanche bi naka nga ko bëree. dama ko bëree si fair-play ci discipline jox sama adversaire lu mu moom ma xam ne day ut man tamit damay ut à tout moment mooy loolu lu mu soxla moom laa soxla man li ma soxla moom la soxla damay jël sama temps xool ñu ma yeb ak xale yi topp sama ginnaaw yëpp surtout ma tout tànk yi ndaw yi ndax du ngi nelaw ndax man heure bi dañuy war a jàngi cours du soir sax duñ jàngi cours du ni lañuy bàyyi seen kay daw ñoo entraînement te duggaguma sax si làmb gi tey seen première sortie suñ ko gisee no bis boobu noonu noonu ku waa googi su ma daanoon ñu sulma arène nationale sax moom ma gënal ko waa ndax yéen tuuma si sa defet ba sama kanam tamit mu du ma si séntu defet te ma si mos a séntu defet ndax bi laa wala laa góor bi takk ngeem noo toll nu ma la bëgg a daanee nam la koy daanee ginnaaw bi nga génne dimanche daan jël bu rëy boobu Dranse fan la teg bëtam. non bëri na de incha allah na waaw mais yàlla baax na quoi yàlla baax na. mais li nga mais yàlla baax na rek. mooy loolu waaw. parce que keroog ñun euh, demuñu stade mais seetaan nañ reporter yi ñu ni li nga indi ci supporter mbër mu ndaw gëj na koo def mobilisation boobu. non te loolu sax am na ñu duggul. ba pare am na ñu ñëwul. nax ñu bëri dañoo nekkoon ci activité yi ak samedi bu ñu nee combat bi amatul ñu toogaat ba benn moment dimanche non di samedi ci treize heures neewaat ñu combat bi am na loolu ñu sax moo ñu pénaliser ba ñenn ñu bëri ni stade bi waroon men menu ko mais sama premier combat sax li ma ci njëkkee sant yàlla fii bépp bëri na bër mu mbër mu mag bu bëree heure bu ñu lay tëggal sa premier combat boo bëriwul premier combat deuxième combat ngay bëri mais ma dem ba quatrième combat foo xamante ne ay VIP dañ fay taxaw di fay bëri spécial waaw si booy bu ndaw tax li ma doon wax nit ñi bu njëkk ma ñëw ko tax leneen li des dañuy bàyyi gars yi quoi affaire keera muy def suñu xam-xam loolu. gis tamit sa doomu ndey fi nekk comme ku ci mel ni booy Gueule Tapée keroog yoonu bokk journée ñu daan ko lan nga koy conseil ak la koy wax. di koy encouragé rek xam ne làmb la tey yàlla lu mu tudd si gaam bi rek da koy namm quoi tey yàlla mënoon na ko tuddee si sama boor mais mooy loolu ñu xam ne ñaari doomu ñoo xam ne ñoom ñu ñaar ñëpp gël taape lañ dëkk yàlla tuddee ko si booram li may def lu ko lu dul di koy encouragé beneen yoon man gisoo ba ma xëyee daan dimanche lundi dama dem entraînement de tey gis nga ma nii nii nii nii nii entraînement laa jëmaat ma yooyu caaxaanee ma ko làmb bu dee si ngay bëggee tekkee ba si menuisier bi ngay liggéey sax di nga xëy daaj sa bopp te boo xëyaatee da ngay daaj kon yow boo si nekkee bu ñu la daanee sax jàppal ni suba da ngay daan booy daan sax jàppal ni yow sa jour mun na di ñëw saay booy tëdd mun nga di tëddaale ñaar yooyu nag moo am si làmb licence loolu lañ si bind daan machine yil victoire défaite kon sa jour booy tëdd ak looy def dee si boole yooyu noonu yëpp xam ne à tout moment mun na ñëw te fi muy ñëwee nag day yàlla day xool na mun nga maîtriser wala munoo maîtriser mais boo mënee maîtriser dëgg yàlla suturaal la nga dem sa yoon. gis nañ nga wax sa biir wax ñu gis la ngay liggéey menuiserie ñaari métier naka nga ko mën a boole. noo ba xam du yàq sa activité entraînement. non mënul yàq samay activité entraînement na atelier laa moo tax am ñu bëri ñu ngi si quartier bi fii nii waaw mooy loolu ma jàngalee meek te ay booy lañ te ma ñoom ñooy toog ñooy nekk guddeeg bëccëg lu nee si man rek moo ne si ñoom. ndax loolu mënul yàq sama dara ci li may def quoi ndax heure bu may dem entraînement maay dem entraînement heure bu may récupérer maay récupérer heure bu ma waree ñëw pour liggéey maa ngi ñëw pour liggéey waaw. léegi ñu ngi tëj ak euh, lan ngay wax sax xale yi la topp ak booy la. képp kuy supporteru Dérange rek nag rek kontaan na gis naa taxawaay bi ñibbisi bi tamit ma gën a am mbetteel si loolu noonu du leen maasaw ndax nit ku ne rek boppam la am nit ku ne rek sa njëriñ nga am. surtout maa sama waa koñ lu ko dalee angal ba angal bépp nit bu dëkk si koñ bi rek noo munti meen mag xale ndaw ñëpp man nag doom laa rek bu xeebu rek du ma dara yàlla moo ko def rek mais di baalu ñëpp aax képp koo xamante ne ni man tax naa rek ñu gëne la rek wala ñu yàqal la rek maa ngi lay jégalu di lay baalu aax ko waa ndax booy ma topp tamit samay moroom lañ de te tamit ay xale lañu xamuñu dara mais àdduna tamit xale jum xale yu baax suba te am na moment yoo xamante ne ni nekkoon nañ si sax ba ku ñuy yedda sax foofu nga ñuy jëlee di ñuy indiwaat nit bu demee ba am lu mu gëstu rek xamal ni kon weesu na moment bu mu nekkoon di ñaanal tamit sama mag yi ak ñoom awma si ak waa Faan Ox ak waa tefes si sumba jun bi na man doomu sumba jun laa ba pare nekk igri sumba jun di sant waa igri bi yëpp tamit di sant Père Kéré ma Ndiaye grand père ak bépp mbër bu nekk écurie Soumbédioune waa Gëltape Fass Colobane Grand Dakar benn tali waa tubaab jalaaw ñangal yéen ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier di leen sax di sant booy yi nii di nga di booy yi nii nii nii nii nii man mooy booy ñoom laay toogal guddeex bëccëg ñoom laay nekkal ba tey démb ba tey ni ma menoon ba tey maax ñoo may nekk tax ba keroog lu waay di def maax ñoo may nekk man ku may jug pour jàppale ma boo ko na jaarale si di nga toog xaar ma ndax man dara mu ñuy ñoo ma fi téye ba léegi xam-xam mu ñuy ñoo fi téye ba léegi quoi ndax ñoom lu ñu am xeebu ma ko lu ma am tamit xeebuñu ko lu ma metti dina leen metti man xam naa loolu noonu waaw ndax man jaral naa leen ñoom ñu ñàkk kon su ma xamee loolu rek képp kuy ñëw rek boo leen mënul digal lu baax wala conseil woo leen wala dolli woo leen xam-xam bàyyi ma ak ñoom quoi ndax man nit ku dem ba am suwaax moom ndax dëgg la dañuy naan Cissé ñun heure bii mënatuñ dab ñun heure bii la moo ni mën a dab defar jubal leeral ndax ndaw yi di ñëw hmm. bu dul dara sax jaakaraa am na lu ñu dénk nañ saytu si lu baax di moytu lu bon kon jamono gi si lu baax rek la saytu xale yi nuy topp tamit ñoo ñu saytuloo si lu baax hmm. ku jàpp ne ñu ngi saytuloo sa doom si lu bon fi nga toog yaa ngi ndax sa bopp dañuy naan tëgg mënul ànd ak wokkatu ñun mënuñu di tëgg ba pare di wokkatu parce que lu ñu teg nii képp ku ànd ak ñun su lu baax lañ lay saytuloo nga siy dox ba boo amul xëy sax dinañ la jéem a liggéeyanteel ba nga am xëy boo amul loo def sax dinañ la liggéeyanteel ba nga am loo def mais kenn ñeneen ñi di toog si ruq yi di wax ak leneen ak leneen loolu garaawul àdduna la fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi ndax nit mooy bind nit yàlla mooy soppi nit yàlla mun na la soppi ba ñëpp nee yaa gën si koñ bi nga xëy ñëpp wa koñ bi ñëpp weer la nga def mbetteel boo xamante ne da leen di bette ñoom ñëpp tey ñu ne yaa gën a bon si koñ bi tey koñ bi yëpp yaa leen di ñaanal loolu yàlla moo koy def mais kon tey yàlla moo dem ba tuddee ko nii ñun nañ sant yàlla te xam ne maa xale yii nii du musa ñaaw te seen waajur yeex ñëpp xale buy toog si déranger na sa xel dal. loolu la gën a bañ arrière bii doo arrièreal góor képp kuy tax a ngeen xaar ñu ñooy ñëw laaju ñu mbër nag tardé wu ñu bay daw dañuy rampe nanga nanga ku ñu war a bëre la yuy bëre yow. man nag ñaar ñu ma séntu mooy ñaari njoole ñu koy yoole heure bi Diop de Prince ñëw ñu rek di leen jëlle mais ñu ngi rampe ñoo ngi seen kaw waaw bii moom mooy loolu jàmbaar la kiit nangu naa buy bëree sax man mën naa nekk si leneen aw ma lu may tiit si moom góor la jàmbaar la dañ ko dund comme lu muy wax rek bu muy metti ba bu muy neex bel tape amaana amoon na ay mbër yoo xam ne sax ñu ngi woon fii mais ñi mën naa wax daa metti mu daw ñenn ñi gëm naa ni ñemewuñu entraînement ay mbir moom nag mu ñëw taxaw dëgër du man kese maa xam jàmbaar la de am na ñu mu dëkkalu sax xam nañu biir jàmbaar la moo tax ñun tamit amul la ñu lenn am di ko dooleel ak lépp ndax drapeau la yor waaw comme noonu ko waaw maanaam moom rek lay topp buy bëre moom lay topp bu bërewul moom lay topp déranger rek day def bruit. te xam ne li ne si moom moo ëpp li ne si ginnaawam waaw lool rek lañ koy wax waaw ndax moom xam nañ yéenam quoi xol bu rafet la yor waaw ñun ñii di toog moom xam nañ ko. lu baax rek lañuy yéné bo togué dafa dara sax mëna la demal nga liggéey xana amo liggéey waaw dañ koy gëna ñaanal rek man mënuma di wax sax bu waxé rek sama xol lay tooy jërëjëf kon mbokk yi li lañ leen indiloon fi nga xamni mom moy gol tapé pench de ngeen mbeur mi luma wax te mbeur def ni boko ko do xam jikom do xam fitam do xam njambaram parce que lancé na fi message bo xamni ñuko ñu xam nañ ko kon ñu nek ci biti di wax nañu bayyi li ñuy wax te xam ne mbër mbër la seen doom la doomu Gueule Tapée la di wax autorités yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk Gueule am na mbër dañ ko jàppale te buñ ko jàppalee seen bopp lañ jàppale seen doom lañ jàppale kon mbër man sa frère la sa grand euh, euh, sa sa nijaay la li ma lay sasar rek nga yokk entraînement yi nga xam ni yokk jom tamit ca kaw ca kanam di wax Gueule Tapée ñëpp jàppale la nga indi roi des arènes incha allah jërëjëf. c e